ñoo dénk lépp lu soxla organisme bonjour ak hygiène publique fii ci aéroport international bu pointe au jóge fa déglu makkaanam di hôtel Emirates ak Abdoulaye Seydou Sow ak délégation lu benn yoon ndax bu ñu ci jógee dañu daal di dugg ci biir Grande Salle Eden ngir waxtaan ak doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew ci projet mille logements bi atum 2019. 1960 bu organiser habitat amoon na restauration de amoon na SICAP de mais loi bu organiser habitat social amul woon président Macky Sall voté lu loi sur l' habitat social en 2016 bi ñu paree mu ne Sénégalais jafe-jafe bi ñu am mooy ci banque yi boo bëggee am kër tey boo demee ci banque bi ñu lay laaj dafay xaw a bëri. te di importer lu nga xam ne amul Sénégal loolu mooy exonération fiscale moom tamit ñu def ko. loolu yëpp bu yembee ba pare li ci des mooy ñu signé ak ay coopératives tey wax dëgg bi ma leen di wax nii. signé nekk Sénégal trente promoteurs yu nga xam ne ñoom ñëpp defee li wax ci li ñu signé ak ñoom danañ dépassé sax cent mille logements day nekk am ay dëkkuwaay ci Sénégal dinañu taxawal ab agent fii ci consulat général bu Pointe Noire. ci Pointe Noire aussi loolu naa ko fëddali danañ ko recruter benn si day nag nga xam day nekk fii ci consul bi toppatoo mbirum logement ak lu jëm ci ministère bi lépp jafe-jafe yi ci am sénégalais mën a dem ci moom mun koo transmettre. ci laaj bu simple. lu waral jamono ji bi ñu doxalin ak Sénégal yi nekk ci bitim réew moo waral Kaffrine dàq lépp lu soxal mbirum campagne ndax li des ci présidentielle 2024 ñaari weer rek la. xam suñ teeloon ñëw wax leen du ngelaw lañ leen jaay. parce que mbir mi ci Goro jaar ci capital administrative bi di Brazzaville capital économique bi di Pointe-Noire Abdoulaye Seydou ab tournée dina ko yóbbu ci Burkina Faso balaa mu koy mbarkeel ci Abidjan di Pays-Bas